salam alaykum beaucoup internet yu diego Parle Foot nuyu naa leen ziar leen euh, di wax képp ko xamantene rek gan nga ci chaîne bi lay ñaan rek nga abonné té activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal di nga bokku ci ñukoy ñëk gis woy leen euh, di like di commenter ak partager loolu ngeen ñu mëna a jàppale bu baax a baax euh, tey nag dañuy ñew wax ci malik défenseur central bu mën li muy def talentueux macha et aujourd'hui mi ngi joué ci équipe bu Allemagne campagne bi mais y a beaucoup de sénégalais yu don laajte ndax ba léegi éligible na ngir Sénégal euh, lool nak dañuy wax waaw parce que d'après buñu ñu sukkandikoo ci loi FIFA yi da fay mëna nek parce que Malick Thiaw xol euh je pense que ni ben match rek le jeu gu ak Allemagne euh, bu mag bi équipe Allemagne bi donc ba ni possibilité am na ngir Sénégal convaincre ko aujourd'hui gis nañ Malick Thiaw ñëw ci pays de racinam muy Sénégal ñëw fii jullee fii loolu di wane que ni bëgg na réew mi bëgg na Sénégal mais je pense que ni la ca war ak lañ ca waroon a dox loolu lañ ca doxalul loolu nag moo waral aujourd'hui Sénégal ñàkk ko comme ni mu ñàkk woon ay joueurs yu mel ni euh, tey jii euh, ay Boubacar Camara euh, ay ki nga xamante ne mooy. Ferland Mendy ak ñeneen ak ñeneen aujourd'hui Sénégal côté boobu daf ci laj ji looloo tax ma ne ba léegi ni Sénégal am na lu ñu war a liggéeyaat ci football